ami site internet Buzz Actu 221 dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar li ci a fës dañ koy door rek moo di Sonko nag am solo la maanaam daal xeexu intelligence daal moom lay xeex ak ku ndax ki nga xamante moom mooy na lu munte comprendre lu seen congrès d'investiture waaye nag journaliste bi nag la daal di xam ne rek moo di décision bi nga xamante ne nag Sonko daal dina koy def rek ginnaaw bu ñu ko gàntalee ba mu lee mbir nag dafa nekk mbir moo xamante ne rek mbir mu ko neex la ndax ba tey rek Ousmane Sonko nag dafa retenir ñi nga xamante ne ñoom ñooy militant ba pare na leen nag na leen def boobu la décision mu nekk mbir moo xamante ne nag mbiru stratégie dëgg nag moo nekk noonu ndax kii di Ousmane Sonko rek nguur gi da ko doon lalal ab ndëgg sarax bu fekkoon rek dafa forcé rek ngir amal mu munu mel wante nag kii di Ousmane Sonko nag fekk si na leen bu baax nak ci boobu liggéey xam na rek affaire bi nag provocation dong la naroon na niru jamono ji nag dañ ko bëggoon a jëkkër créé ko wala mu def loo xamante du noonu rek ñu yóbbu ko nag nga xamante ne fa la benn ba tey rek ki nga xamante ne nag moom directeur des programmes Walfadjri nag ma ngay rafetlu bu baax intelligence bi nga xam ne Ousmane Sonko am na rek ba fekk si benn yoon ci seen boobulee preuve ci benn ci seen boobulee piège jërë jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bu saale cloche de notification ngir amaat info jaa jëf